ñaawlu décision bu injuste bi conseil constitutionnel du Sénégal jël éliminer éliminer l'espoir de tout un peuple Karim Wade mësul revendiquer ni moom français la looloo tax ñu ne c'est une décision injuste et ñun ñi nga xam ne ñu ñooy le fer de lance du parti démocratique sénégalais dañuy exiger dañuy un exigeant demandé wuñu à ce que ñu boolewaat ko si liste yi ñu war a dem élection tout de suite looloo tax ñu ne UJTL mu ngi ne le président Abdou Karim Meïssa confiance bi ñu amoon ci moom barki démb ak démb tey la confiance bi gën a wóor moom nag xaar mu ñëw jeunesse bi nee dañ ko exiger mu ñëw moom ñu porter combat ak moom